Get me on the beat, boy. Get me on the beat, boy. ñoo ngi leen di fay. tey lu waraloon koy defar ci ASC yi nekk fii ci Tëngéej yëpp. waaw li waraloon woote bi tey mooy def li nga xam ne comme niñ ko tàmm di defee ci commune de Rufisque Ouest mooy yëkki subvention jox ko ASC yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi. mu nekk loo xam ne mu nekk loo xam ne monsieur le maire bokk na si ñi ko initié te doon ko doxal at bu ne saa bu waxtu bi jotee. yaakaar naa ni taxawaay bi ñuy taxaw tey di ko taxawee comme maire par intérim nekkoon adjoint maire bokk ci bureau municipal bu monsieur le maire Alioune Mar lépp loo xam ne mu ngi ko doon doxal rek si lañ fas yéene teg suñu tànk yeggali ko. perspective yi ñu jëm mooy tey on dans le cadre de l'éducation de la formation la commune envisage de faire des formation pour les entraîneurs afin de les accroître des diplômes d'État pour qu'ils puissent s'insérer dans la fonction publique. bésu tey bii li mu ñuy fàttali mooy ki ñu doon toogandool ki ñu doon wax ñuy def ki doon def ñuy gis kooku tey bu ñu wanee ginnaaw si diir bu gàtt dañu naan li ñu def nii lu ñu mënula bañ a def la ndax bu ñu sañoon moom moo koy teewee ñu toog ci ginnaaw ginnaaw bi suñu borom bi dogalee lu mu dogal dañu koy ñaanal te di ñaan yàlla lépp loo xam ne mu ngi ko doon yéene di ko def pour commune bi ñu teg si suñu tànk doxal ko waaw ñoo ngi sant ñëpp di sant bureau municipal seen teewaay di sant les conseils municipaux ñii njëw ak ñii njëwul ñëpp di gërëm président zone bi ASC yi la presse tout le monde ñoo ngi sant ñëpp di leen wax yal nañu yàlla may une bonne saison te ñu joue ci fair play parce que commune bi am na ku fi nekkoon nekk modérateur nekk régulateur di doxal jàmm si saa problème amee ñu xam ne tey dëddu na li nga xam ne moom la ñu doon wax li mu ñu doon incité si non violence moment bii la ñu war a xool ci image am ba dara bu mu ñaaw benn problème bu mu am lépp sedd euh, président euh, Diop am benn message bu mu lancé mu ne ASC yi nga xam ne dañoo nekk ci commune bi moom sas na leen ku nekk jël programme li nga xam ne école la li nga xam ne poste santé la ñu war ko béy comme dañu jëm ci rentrée des classes ñoom man maa ngi leen di ñaax ñu def seen programme par rapport ak école yi mairie dina leen accompagner pour ñu désherber désinfecter les classes loolu moo nekkoon kàddu yi maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp